ay partenaires lañ fi financé ay yu bari bari ñom ñoo financé teen bi ñom xam ñu sax fa la dëkk bi nekk mm-hmm. mais li am solo mooy ñu xam ne kat ñi ngi dimbali ay nit manam ñi ngi def teen boo xam ne am nañ yaakar mu dund fi ay at yu bari bari di dimbali doomu aadama yi tuyaaba yooyu lañ ci yaakar yalla bindal leen ko yalla fay leen ko xam kon koku dafa melni ñi ngi def ci seen compte bi nga xamante ni yowmal xiyam la jëm yalla na leen borom bi nangul amin ya rab tubaarkàlla tay ñew ngeen fo xani fi fii non ci seen ñew bu baax baax ndax fi ngeen indi lii tey fi nu ko indi jafe-jafe bu mu fi fekk ci ndox tey bu ngeen ko fi indee tey du nuy kontaan ci yéen lool. maa ndox bi yàgg na fi li fi nekk tey ci jur gu war a naan ndax robinet fii robinet anun amagunu robinet robinet amagu fi teen yi teen yi amul ndox fii mu nekk boo séenee teen yi teen bi nga séen fële boobu am na boobu même amul ndox foofa amul fa ndox ndox daf fi manqué lool noonu la ñu manqué ndox. tey fi tey nag bu ngeen jógee tey ngeen wutal nu teen bi tàmbali ko nii nu am ci yaakaar lool ñun ñëpp seen xol da ci sedd ci yaakaar naa ni bu ko yàlla yeggalee mbégte lay doon ndax xam naa ni tey li fi nekk ci ay jafe ndox bu teen bi yeggee ci jàmm nii bay ndox mi génn ci jàmm am mu mu pare yaakaar naa ñun ñëpp daan ci kontaan ndax tey soxla nañu ko lool ci muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp ci jaaxle ndox tey ci tund bi tey manqué maa ndox bu méttee fi ne tey fii ngeen di ko defe tey tubaar tubaarkàlla kenn ku nekk kontaan nga ci lool ci yeggagul ndax kontaan gi moo di yaakaar gi ñu ko sumba nii tey fi tey ndax yaakaar yaakaaroon woon daanu ko daal di am bi ngeen ko indilee nag tubaarkàlla nii fi ngeen ko indi tey ñu ko soxla lanu ñu ko bégee nu ñu ko bëgg lanu ñu lu fi manqué la fi it nag bon nu ngi leen ci ko euh, sargal yéen ñi ko indi di leen ci ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen ak ka sabablu moom itam di ko wut lu mu cay wut ci yàlla naka ko yàlla defal ak di leen masawu coono rek ndax fi mom sore na trop waye tamit wax dëgg yalla ngeen ñew ba fi tamit indil ñu fi ten bi tamit te yitte woko lol nak ndax fi mom ten bo fi gess rek daanaka ndox mi du bari bi nak yalla na ci yalla def xewal ba ñepp man ci di rot di sangu ndax ndox mom mo yor nit mom ndox mom mo yor nit di sant tamit ñi koy fi ñi leen ka jox pour ngeen jàllale seenu ko fi ñoom tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal dal di wax ne dal mom teen bi ya yalla na beuti ci jam rek indale ndox mu neex te bari lol ba ñepp man ci am xewal ndax fi mom dañoo manké ndox mom ñun jigeen yi noonu lañ sonne teen bu ne dañu na fa dem roote ji ndax bëgg ndox mu neex ndox mu neex si nga mëna foot mo mëna sakkanal saabu omo bu ko defé nak ngay wëri teen bu neex rek ndax bëgg ndox mu neex te ñun tamit fi ñu yanu jee ndox sore na lool teen bu ñu dem day nekk fajar ngay juk ay guddii ndax bëgg ndox rek te mënoo ko am ba yàlla def na ngeen indil ñu fi teen bii a ah, yàlla na yàlla mottali lépp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu daal moom amaguñu robinet amaguñu courant amaguñu dara ñun daal ñoo ngi nii rek amuñu dara dara pour nga chargé portable sax problème bi amaguñu dara ñun daal ñoo ngi nii rek mboltim ka amaguñu dara. Bienvenue à Mboltine, bienvenue à juste 5 euros, donc encore un de vos puits. ici à Mbeltine tout un village est, dans l'espoir de, puiser les premiers seaux d'eau ici. Donc ils sont à quelques 8 mètres pour une profondeur qui est estimée entre 12 et 15. Tout se passe très bien, donc on était venu visiter Le travail en cours, ça se passe très bien. Puis Ali Mosrati, on ne sait pas qui c'est qui est derrière, qu'Allah ta'ala le fortifie et qu'Allah ta'ala en fasse euh, profiter à ce village et qu'il le mette euh, sur le bon côté de la balance pour tous ceux qui sont derrière ce puits, que ce soit les donateurs ou l'association Juste 5 euros, qui en est à son énième puits ici et dont le partenariat est toujours le, la bienvenue. C'est un plaisir encore de vous retrouver, de retrouver un de vos puits, de retrouver votre nom gravé sur un tableau de puits. Ah, ça date de longtemps, ça date des premières heures de Sakuyu et ça continue bien. Donc on reviendra à là pour la réception de ce puits.